jërëjëf sëriñ bamba jërëjëf sëriñ bamba jërëjëf sëriñ bamba jaajëfe xaadimu rasool jërëjëf sëriñ bamba jërëjëf sëriñ bamba jërëjëf sëriñ bamba jaajëfe xaadimu rasool cheikh bamba yaay sunu assurance bamba say ndimbal raw ay finance sëñ bamba yow la jox sunu confiance jaajëfati xaadimu rasool moo gën am ay licence bamba weddi laa doy na ñàkk chance bamba moroom doo concurrence mbërum yàllay xaadim rasool wuy si laanu gënal audience bamba donte day palais présidence sëñ Gabon walla bu France yaa nu gënal xaadim rasool cheikh bamba moom non violence bamba la woote di jëf ne silence sëñ bamba moo tax murit amul tendance nañu sant xaadim rasool sag wallu raw na ambulance bamba dégg raw na fréquence sëñ bamba njaare ma doonoon sa résidence surveillé cey xaadim rasool tubaab yi ñoom dañ la daan menace bamba buur yi fi ne woon daan la offense sëñ bamba woon benn défense budul yoneen xaadim rasool gaa basam benn distance tubaab ya def nañ fa séquence ñoom ñëpp toog di assistance ngir bëgg lor xaadim rasool cay sëriñ tubaab ya def nañ fa séquence ñoom ñépp toog di assistance ngir bëgg la xaadim rasool lii rekk doy na prudence bamba seen yéene mooy xañ la cadence sëñ bamba océan bële ku ñu fa relance ca gabaw nga xam ne doo xaadim rasool yoneen bi mooy sa référence bamba amoo defet yow bay laaj revanche sëñ bamba santati nañ la sa souciance naan jërëjëf xaadim rasool seex bamba yaay suñ confidence bamba muritoo raw na alliance sëñ bamba ku woote gis présence ci kër mooy suñuy agence bamba say xasidaay suñ opulence sëñ bamba màggal la wootee du ambiance borom safar xamuñu sa morom xaadim rasool yaay sunu autosuffisance bamba yow yaa woote conférence sëñ bamba toog naan day patience ngir bamba mooy doon nay rasool ngir xutbu yaa caas ak enfance nga leen rawoon yaay croyance sëñ bamba sa mbir dee xel mënu ko science yaa yéeme yow xaadimu rasool